waaw damay sant yàlla euh, ginnaaw bi ñu gërëmee ñëpp ñi fi nekk euh, nuyu monsieur le préfet bi nga xam ni moo fi teewal président de la république ma nuyu madame le maire de la ville de Dakar le maire suma xarit Bamba Fall ñun ñëpp ñu lënkaloo suñu moyen ne tey dañu bëgg Sénégal zéro déchet ñu commencé ko fii euh, commencé ko ci Médina dañu ko doon def fépp mais dañoo ne léegi week-end bu nekk ñu jël benn commune weekend bu nekk benn commune tey ñu commencé ko par Médina Médina lu tax ñu tàmbalee Médina nag Médina lu mu représenté ci Dakar ci histoire mais aussi Médina lu mu représenté ci population électorale ci population tout euh, tout court mais aussi li Médina représenté ci ci engagement élus locaux pour ak population yi sumb ci liggéey bi pour mën a doxal mbir mi loolu nag ñu ñëw accompagner leen ñu boole suñu effort yëpp. te ni ko président bëggee ba nga xam ne programme zéro déchet mu nekk réalité parce que Sénégal zéro déchet te capital ba mu mu am déchet loolu amul njariñ ñu bëgg ne bu ñuy wax Sénégal zéro déchet Dakar mooy buntu Sénégal ñu commencé ko Dakar bu ñu koy commencé Dakar ñu commencé ko Médina ñu def ko un week-end bu nekk ñu def ko commune mais dafa war a nekk tous les jours loolu ñu bëgg rek tey bu ñu ko lancé population yi ñun ñu boole suñu lu ñu président jox. boole ko ak li mairie Dakar yor ak li mairie Médina yor ñu boole suñu doole boole suñu xel boole suñu xam-xam ba nga xam ni programme zéro déchet mu nekk une réalité dans tout le pays. ci lu jëm ci suivi bi gis nañ ne des fois suivi bi du ci waaw loolu maire Dakar wax na ko léegi li ci am solo mooy tey ñu commencé ko mais naka la ñuy def ba lu ñu commencé ñu bañ ko arrêté mooy ñu trouver des moyens structurels de suivi. loolu euh, ñu ngi suñu service yi danañ ko continuer di suivre mais danañ lënkaloo comme ni ma ko waxee ak mairie de Médina ak mairie de Dakar pour xool naka la ñuy def ba nga xam ne fépp fu ñu dindi salte salte bala ma saa mais place bu am salte bu bu ñu dindi salte nag dañu ko war a ba nga xam ni du amati place su salte boo amatul place su salte rek kenn du fa saltel mais li ñu gën a bëgg mooy sénégalais bu nekk dakarois bu nekk def ko ci comportement am nga xam ne jarul ñu koy fàttali jarul ñu koy ñu koy wane ay alkaati jarul ñu koy wane ay doole mu xamal ko boppam di ko doxalee boppam ñun nga xam ne lu ñu war def rek mooy yokk mbir mi bu ñu paree nag sensibilisation parce que loolu tamit du suñu rôle rek ñun la dëgg la mairie dakaar la mairie de Médina la waaye population yu Médina ñi dëkk ci dëkk bi ñoom ñëpp ku ci war a dugal seen loxo muy xale yi muy jigéen yi muy organisation de jeunes muy organisation de femmes ñëpp dugal ci seen loxo ba nga xam ni ku ci nekk ci ñun mën a gis programme xam ne daf ko jagleel ne mu nekk réalité partout bu loolu jeexee nag état tamit état la état dafa war a am jumtukaay yu nga xam ni dafa war a respecter comme dafa mel lay jàpp bi day dem tamit bu a tilimal ku bëgg a yàq liggéey bi état bi am na jumtukaay pour mën laa arrêté. loolu daal mooy lu nga xam ne jumtukaay mais jumtukaay yu nga xam ne yeneen ko pour que Sénégal zéro déchet nekk une réalité. monsieur le ministre une question l'occasion fait le a t l'habitude de directeur du COUD aujourd'hui vous avez constaté les problèmes euh, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar votre sentiment par rapport de Médina, quelle sera la commune suivante Là, vous, Chaque, vendredi, samedi, nous serons dans une commune. Et les 19 communes, nous ferons le tour. Et lorsque nous terminerons tout, nous reviendrons à Médina pour voir est-ce que nous avions fait il y a un mois a été bien surveillé ou n'a pas été bien surveillé. Et nous évaluerons avec les autorités locales. Madone Bougawak Regne, ligne d'affiche, avec monsieur le ministre de l'Urbanisme, avec le préfet Dakar, avec maire de la commune, Mouy Bamba may ñaaxaat population yi ngir yàlla cet gi dañ ko doon wax di ko wax Dakar ville propre yàgg nañ koo wax ba ñuy wax cet boobu Covid amul. Covid am ñu ne nañ set nañu raxas loxo yi nañu sol ay masque nañu moytu kon lii ñuy def. pour suñuy doom léegi lii propreté bi ñu fi nar a bàyyi ak environnement bu baax bi héritage la boo xam ne dañ koy bàyyil suñu doom yi kon ñun ñëpp en tant que citoyen nañu respecter loolu civisme nag daf fi manqué torop lu neex waay daf lu neex fu neex waay sànni culture yi sànni daal lañ am Sénégal kon nag lii ñuy def tey nga xam ne dañ ciy def alal bu bari ngal la bu ñu sànni alal boobu bu ñu ko defaree tey nañu fexe ñun ñu dëkk ci gox yi ñoo ko mën a surveiller parce que police mënu ko surveiller euh, maire yi mënuñ ko surveiller il faut que population yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yooyu bu ñu gisee kuy def naka su dul noonu ñu oote bu ñu ootee police ñu ñëw amande leen bu ko defee ñun liggéey bi danañ ko mën a gis mais tant que ñu ngiy def ñuy saltelaat ñu continuer def cercle infernal rek lay doon jërëjëf loolu laa bëggoon wax. mooy dañuy gërëm assistance yëpp di dalal jàmm madame le maire Dakar préfet Dakar waa UCG. ak euh, urbanisme ak ñi ñëw ñëpp di beral nuyoo sunu frère ministre Abdoulaye Seydou Sow man nag euh, ministre la boo xam ne ànd ak moom dina man neex ndaxte ku ñeme la ku am fit la te ku bëgg réew mi la. ci ay diir bu ndaw bi mu nekk université rek gis ngeen ni université changé kon bu nee dinaa changé Sénégal mën nañ koo gëm ndaxte ci diir bu ndaw rek la mu def université moom la ñuy coow ba léegi monsieur le ministre ñëw nga foo xam ni liggéey bi nga taamu bëgg nañ ko fi. ndax ville de Dakar commencé woon na ak Dakar Viprom madame la maire na ci na ci dellu si ñun Médina aussi commencé woon nañu opération Médina set bi am weer bu nekk mais moyens yi nga ñu indil tey ñun jafe na pour ñu am ko ndaxte nag état moyens yi mën a am ñun day difficile ci ñun maire yi ñu am ko. ma lay wax ni nag dama lay rassurer nii di nga am suñu jàppale bu baax a baax ndax réew mi dafa jar defar politique dafa am heure bu paase nañ ko teg ne le diine tamit am na waxtu mais bu réew mi taxawee dara amatul. nañu xam ne muy préfet bi di ministre bi di maire bi di keneen nous sommes tous ay démembrements de l' état nous sommes des fonctionnaires de l' bu ñu réew mi soxla dañoo war a bàyyi li ñu jàpp taxawal réew mi réew mi avant tout fi may jeexalee rek mooy may demander ministre bi ak maire Dakar devant les journalistes Médina tey ñu ngi ci 112 batiment yoo xam ne bu nawet bi ñëwee ragal nañ ne genn wàll gi na daanu rey ay nit may ñaan ñu bañ a xaar mu rey ay nit luñ ci mën dimbali ma ñu daaneel yooyu ndax seen borom jot nañu kayit yëpp. jot nañu autorisation de démolition am na ñoo xam ne jot nañu arrêté de péril kër yi fi ñu toll ñoom amuñu doole daaneel ko te mairie bi bëriwul doole kon maa ngi ñaan ville de Dakar di ñaan ministre bi di ñaan préfet Dakar lu mu gën a gaaw balaa nawet bi loolu ma mën a dimbali ba ñu daaneel kër yooyu ma jël maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. fii am naa fi ren cinquante ans juróom benn ministre de l'intérieur fekk nañu fi bu nu dundee di ko fekke ba deux mille vingt président Macky Sall jiite réew mi bëgg réew mi set bëgg réew mi tegu ci yoon. nu toog ba ministre bi yite urbanisme mën a ànd ak préfet ànd ak maire de la ville ak maire de la commune Médina ànd ak mari ànd ak police fierté la ci nun noo ngi ñaan yàlla taxawu leen taxawu président Macky Sall noo ngi taxaw Benno Bokk Yaakaar yàlla na ko yàlla sunu borom dëgëral monsieur le préfet ñu ngi lay sant